aywa jërëjëf Chérif am nga chance Vieux Diouf moo fi nekk Pape Samba Thiam du la may dara jërëjëf ñu dem ci euh, euh, l'observateur l'observateur à la une <laughs> jërëjëf Bachir merci beaucoup invité bu ñu am saa yu dem dina sànni baat Chérif parce que dafa xaw a luubu ñu dem ci décision de justice ak rebondissement spectaculaire dans l'affaire des 94 milliards Euh, loolu nag waxees na ko xam ngeen ne mbiram quatre-vingt-quatorze milliards si luy waat ko gannaaw ba yoon joxe ab euh, dogal atte bi nag mi ngi daal ñu ne euh, radiation maanaam dàqu ci prénotation bu SNHLM ci soxal benn titre foncier TF ak daal mandataire bu njabootuk njaboot gi à Diomaye et Sonko leneen itam lu ñu mën a gis à la une de l'observateur denrée de première nécessité la vérité des prix mu mel ne éliment Elimane jëwriñ ji waxoon na euh, ñoom waxoon nañu avant ñuy egg si lu jëm ci wàññi dund gi mu ne nag si le blé le riz l'huile le sucre sont importés notre marge de manœuvre sera moindre bu fekkee ne dañuy wéy di jéggaani ceeb diw suukar ak ya ca topp daal mbir mi du xaw a yomb Aziz Ndiaye importateur moom daal li mu wax nee na Euh, li ni ceeb bi lim leen di dikkee euh, daal euh, daa mel ni mu gën a moo ëpp doole li nu koy jaayee li li sénégalais yi bëgg ñu jaayee ko ko. loolu la wax lu jëm ci njàng ak njàngale ak doomi senegal ya nekk biti réew di fa njàng ñoom nag nee ñu toog na ñaari weer daal jotuñu seeni payoor lu ci mën a am direction des bourses moom ma ngay dalal seeni xel leneen lu nekk ci l'observateur itam ak Babacar njaay ak sponsoring bu bal waxees na ce wax nañ itam euh, ci dette ak état récolte euh, la colère de opérateurs euh, semencier ba tey coowal mbay bi jeexagul ak ñi nga xam ne itam ñoom ñooy producteurs yi ak leneen i wax lu jëm ci wàllum musique chanson dédiée à Diomaye Sonko lu Abdou Guité moo ko def le cœur a ses raisons gis ngeen ni ko bindee ak ki ko defal kër bi Louga njombee fa am benn jàngalekat sëriñub daara neenañ daal moo sàkk juróomi gune yu jigéen ñu tëj ko fukki ati kaso ca yooyu jamono Pikine itam beneen njombe moo fa am benn ndaw daal la magam faat ana lan moo ko tax mu faat ko werante ci làmb ndax moom da doon ŋàññi Eumeu seen mag ja mer euh, fa mujjee jaare wujji boroomam lu doy waar Malick ñu dem ci record lu dem ci record record moom mi ngi ñëw rek ci Premier League Brighton Chelsea à 18h Jackson vise un 15e moom numéro 15 la 15e la bëgg a dugal waaye Pape Matar Sarr ñoom du ñu dem Ligue des champions ndax démb euh, dañu leen dóor Stade mbuur Mbour Saliou Samb réclamé par les supporters nee na dégg naa seen wax dinaa ci xalaat Al Nasr projet pharaonique euh, d'Al Hassia ñoom nag dañoo bëgg jël ki nga xam ne moom moo di Sadio Mané ginnaaw. bi ñu jëlee championnat euh, D2 bi bëgg ko boole ak Mbaye Diagne Ligue 1 terrain neutre et huis loolu mooy sanction yi nga xam ne moom lañ teg ci kaw Jaraaf ak AS Pikine ginnaaw bu nga xamee ni seen match dafay am toujours coow ak jàmmarloo. jërëjëf El Hadj Malick mu nekkoon euh, ñaari yéen kaay groupe Futur Média l'Observateur ak Record 9h jot na ba tegal ñaar fukki simili ak ñett ñu dem ci xibaaru.